ngeen responsable APR APR nga mais APR avant élection ak après élection yëpp gis nañu affaire yi ni mu jaxé noonu gaay ñu ngi ñu ngi ñu ngi attaquante ñi di attaquer gauche ñi droite lepp ci seen biir loolu lu ko waral. donc ci loolu lima ci wax attaque bi attaque bi Amadou Ba lañu attaquer té ñi ngi attaquer Amadou Ba bo wo ak légui mi ngi bëgg a ñi ngi def nopi nak di leen sétane té dem nañ ba tok ba mënatuñu parce que dem nañ ba xamni Amadou Ba amul seen temps amul jot pour di leen tontu. parce que liggéey bi mu yor mooy ko muy tontonteeg ay nit waaye ñooñu di ko attaqué nañu xam ne Amadou Ba du seen morom il a fait ses preuves mooy boobaak léegi bi ñu ko koy joxe référendum ba léegi mi ngi fexe di gagné dakaar ndax moom lañu ko dénk te ñeneen ñi koy attaqué ñëpp amuñu base ñiy attaqué amaro Ba gisuma ku ci am base amuñu base xam nañ leen mënoon nañu wax seen tur mais duñ ko wax. waaye est-ce que doo ñu wax tur seen tur tamit. non jarul le moment est venu wax seen tur duñu wax seen tur. bu ñu bàyyiwul dinañ wax seen tur parce que xam nañ leen nañu bàyyi jàmbur Amadou du seen morom il a fait gis nañ ni dakaar moo ko mën a gañe gañe na ko référendum gañe ko législatif gañewaat ko présidentiel ci loo xamante ni gëj naa am depuis xawma ban année kon donc nañu bàyyi jàmbur mu liggéey fii nag dara ñoroogu fi bañ koy macc Amadou Ba lu yàlla tudd ci jëm dara mënul tee ba loolu du am ci àddina bu yàlla ne Amadou Ba dina lekk nangam ci réew mi kenn mënu koo tee am donc nañu gëm yàlla te dama wuti ci base te liggéey. incha allah lan nga yaakaar ni moo tax ñuy attaqué Amadou Ba. waaw parce que daf leen a tiital dañoo xool profil Amadou Ba xam ne Amadou Ba dafa nekk ci yoon di dem mu tiital leen loo leen jaaxal parce que Amadou kenn mosu koo dégg mu attaqué diw wala kenn. tiital gi mu leen tiital nag moo tax ñuy yónni ay nit ñuy jéem a attaqué ñuy bind loog lu ne ñu koy jéem a def parce que Amadou leen tiital. léegi lan ngeen nar ci yéen ñi nga xamante ni yéen a jege Amadou Ba. liñ ci nar mooy dootuñu leen may kenn ku ko attaqué. dootuñu mayeti kenn ku ko laal te bu ñu commencé bu ñu continué waatee ci lii dinañu cité seen nom parce que ñoom ñëpp xam nañ leen dootuñu ci may kenn muy attaqué Amadou Ba dootuñu ko may kenn ci réew mi. donc ana ban message ngay lancé ñi nga xamante ne ñooy responsable politique. message bi may lancé mooy opposition maa ngi leen lancé message mooy nañu ñëw ànd ak président liggéey ndax président woote na dialogue te ku ne réew mee la tax a jóg da ngaa bëgg a defar réew mi président lancé dialogue na ñëw leen ñu waxtaan kon nañ dem waxtaan ak président. ñu xool njëriñu askan wi ndax bëggeen ngeen a jël réew mi yàlla dogal jëlu leen ko ndax président Macky Sall yàlla dogal moo fi toogaat juróomi at ku bëgg a réew mi ñor la te nga mën a liggéey di nga ànd ak moom ci dialog bi ñëw wuy ko kon maa ngi shon opposition Sénégal ñu ñëw wuy si président ànd ak moom ci dialog bi mu leen di wax ñu mën a waxtaanee njëriñu réew mi jërëjëf monsieur Ishaq allo Dakar mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi lan jërëjëf si Semaria ñi ngi kontaan bu baax di woo waa Benno Bokk Yaakaar ñoom sama kàddu mujj lool la na ñu àndaat te booloo boobaak léegi ñu ngi ànd di gagné élection kon ànd bi rafet na na ñu kon ne ànd bi ñu ànd lu ñu sonk daan ko jërëjëf allo Dakar maa ngi leen di sant bu baax a baax merci Sista Maria. jërëjëf monsieur Ichar ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen joxaande rendez beneen yoon.